Oustaz Lamine Gueye mu ci plateau bi yaa Oustaz mu ngi lay nuyu di la ziyaara am nañu mbégte di la retrouver ce matin maa ngi lay delloo nuyu ak ziyaara mm. ñun ñoo leen gën a am mbégte namoon leen lool ndax semaine bi yàgg si ñun lool ndax namu guñ leen namm mm-hmm. namm plateau bi maa ngi nuyu ñu ma bokkal euh, plateau bi yëpp kenn ku si maa ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal jàmm mm-hmm. di nuyu mboolem téléspectateurs yi ñu seetaan ak fu nu mën a nekk ci àdduna bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah yaa imam dalal ak jàmm ci plateau bi tam Kéna mu ngi fi Kéna mu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Camara merci beaucoup c'est toujours un plaisir di leen nuyu yéen ñi ma bokkal plateau bi di leen jaajëfal bu baax a baax mais aussi di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan Aïcha. donc comme tous les jeudis dañu daal di ñëw directement ci ay astuces mais cette fois-ci de cuisine. astuce de cuisine. alors kon ko dañuy daal di dox daal di dem ci li nga xam ne mooy tabaski te ku ne tabaski dañuy daal di euh, xam ne euh, togg gi dafay daal di bari ndax bu ñu rayee suñu xar ba pare euh, dañuy daal di togg mais ñu bari togg bi dañ koy daal di defal accompagnement accompagnement bu ëpp nag ci sénégalais li ñuy daal di defar day daal di doon li nga xam ne mooy frite donc frite nag nekk na li nga xam ne accompagnement bu sénégalais bëgg lool mais dañu daal di bëgg li nga xam ne mooy surgelé c'est-à-dire frite bi nga xam ne dañ koy defar ba pare di ko congelé saa yow ku bëggee rek nga daal di ñëw euh, dal di ko def surgelé donc nag ma indi euh, frite bi naka ngay defarale sa bopp frite yow nga daal di ko defar sa bopp surgelé et que sans pour autant nga dem fay euh, xaalis bu bari parce que xam nañ ne frite surgelé yi ñuy jaay ci espace yi dafa daal di cher lool donc pomme de terre baa ngi nii boo leen jëlee pomme de terre bi ngeen xolli ko raxas ko ba mu daal di set dagg ko ci ni ngeen bëggee forme bi daal di toll mais toujours day doon forme frite donc raxas boo leen ko raxasee nag da ngeen koy génnee euh, ci li nga xam ne mooy ndox bi donc euh, voilà ngeen daal jëlaat beneen ndox daal di ko baxal donc boo leen ko baxalee ba muy waaja a ñor mi ngi noonu donc merci Bamba ngeen baxal ko ba muy waaj a ñor aussi da ngeen koy daal di seppi rek ci li ngeen xam ne mooy ndox bi ngeen ko doom baxalee gis ngeen dañuy daal di wone euh, nu muy waaj a ñoree boo xoolee du ñor xom nag parce que xam nañ ne pomme de terre bu ñoree xomm booy laal rek muy tas mais buy waaja ñor nga daal di ko seppi boo ko seppee nag aussi da nga koy daal di segg maanaam ci passoire bi nga daal di dindi frite benn ndox bi ba nga xam ne carrément euh, dëñ na nga daal di ko étaler ci sa torchon euh, bu propre daal di ko nettoyer ba mu daal di wow gis ngeen boo leen sentiree ne wow na carrément mi ngi noonu. après nga daal di jël sa xorom daal di ko ci def euh, am na ñi nga xam ne également dañ ciy daal di def frite mais après dinaa leen wax beneen version bi ngeen xam ne moo gën a euh, facile donc boo leen ci defee xorom ba pare da ngeen koy daal di euh, dugal ci diwlin bu tàng ngeen daal di ko bàyyi juste deux minutes du ñor carrément donc boo leen ko bàyyi juste deux minutes rek da ngeen koy seppiwaat voilà boo leen ko seppee mi ngi nii donc euh, ngeen daal di ko teg ci quelque part bi nga xam ne euh, diwliñ bi dafay daal di siit ba set du am benn diwliñ donc boo leen paree ngeen daal di ko def seen sachet dal di ko congeler voilà boo leen ko congeler ba jour bi ngeen xamee ne moom ngeen bëgg a togg ngeen daal di dindi euh, congélation bi ngeen daal di ko jël def ko frite donc boo koy lekk dafay daal di nekk frite surgelée euh, pourquoi sénégalais yi bëgg frite surgelée mooy euh, frite boobu noonu mooy gën a crucial ba tax na dañ ko daal di bëgg lool am na beneen façon bi nga xam ne mën nañ ko daal di defaree toujours boo leen raxasee seen pomme de terre ba pare ba baxal ko da ngeen koy génneewaat boo leen ko génnee ngeen daal di ci mélanger li ngeen xam ne lu ci mel ni farine def ci xorom mélanger ko ba mu mélanger wu après ngeen daal di ci tëmbal glace non boo leen ko génnee ci baxal bi da ngeen ci daal di def glaçon ay glaçon euh, ba ngeen xam ne glaçon yi seey na ngeen daal di ko seppi dal di jël farine ak xorom daal di ko euh, mélanger daal di ko dugal seen congélateur boobu moo gën a facile jarul ngeen koy saaf 2 minutes donc boo leen paree rek boo leen koy saaf Aïcha day doon euh, frite surgelée boo xam ne day croustillant day xoyam <laughs> pombiteer pombiteer pombiteer laay wax pombiteer bii nii bi ñuy def fii neex na moo gën a am goût surgelé bi nga xamante ni moom la ñuy jënd ci surface yu mag yi mu duggee si frigo bi mais sauf boo ko saafee léegi léegi day bu seddee day lax mm-hmm. te bu laxee <laughs> am na ñoo xamante ni <laughs> duñ ko bëgg <laughs> bëggee wuñ ko noonu donc du coup lii comme ça ñu xam na la ñuy defaree bi moo dul lax non mm-hmm. surgelé bi moom du lax boo ko toogee ba pare mën nga ko teg ba heure booy reer voilà di day crucian di nga ko mën a lekk mais bee gis nga boo ko tegee. day lax bu seddee day lax ba pare. diwlin bi <laughs> may gay moom la jël kon. Ah, may gay voilà t'as tout compris. mais bu ñuy wax si goût ak neexaay. moo dàq foofu sa waay lu lax nag moom moom. vraiment lax ñu wax de. day lax mais damay gis aussi des fois euh, bu ñu bañee muy lax boo koy boo koy kii boo koy saaf nga wis ci vinaigre. vinaigre waaw. voilà mën na koo téye tuuti wala boo koy saaf. nga def ci aussi farine. Mhm. am na ñu nga xam noonu la ñuy defee frite donc day tax mu croustillant tuuti. mais vinaigre bi sax taxul mu bañ la lax suñu fritu dëkk bi <laughs> pour mu lax c'est vite fait. vinaigre taxul sax mu bañee la ah mm. doy na waar de euh, loo ci àddu yéen produit la boo xam ne peut-être euh, technique de de de culture la boo xam ne peut war nañ ci gëstu parce que tam lu laax moom vraiment c'est-à-dire euh, ah. bu ñu nee frites c'est pour que mu croustillant donc mm-hmm. du coup euh, bu fekkee da ngay <laughs> lekk la finalement li war li tax nga ne frites vraiment du leneen la waaw je pense que peut-être avec les moo tax rek waa ISRA baax fii parce que ñoom dinañu xam yan yan technique ak yan mm-hmm. matière la ñuy mën a utiliser ba defar ñun ñuy am ay pomme de terre de qualité. Mhm. yoo xam ne peut-être ça peut ça peut ñuy def ay pomme de terre de qualité loolu lu am solo la kii euh, kii Pape. xool mooy xool mën nga wax dara ah euh, bon euh, esthétique la wala kii wala wala affaire esthétique la wala affaire goût. pomme de terre genre le fait que ñuy wax bon mais je trouve pas la différence quoi genre dafa lax wala laxul loolu est que. je pense que les deux. ñaar yëpp parce que booy dressé. merci ku ko jox booy dressé. Ah, nga ñëw teg. bu lax euh, bu lax rafetul ak ay ay frites yu lax. ok par rapport ak. ça doon mais loolu ba pare deuxième aussi moo tax ma ne c'est deux booy jël aussi lu croustillant moo gën a neex a téye lax foo téye naan ni déjà de dëw am dëwlin man ah j'ai vu ça da ngay dëwlin bi day taa taa donc booy booy ñam tu sens carrément l'huile alors que bële da nga yëkkati rek da ngay day dem tu sens pas l'huile en fait du coup y a le côté goût mais man na dama foogoon man na dama foogoon ne euh, bi nga xamante ne moom moo nekk pas surgelé mais bi nga xamante ne peut-être dañ ko dañ ko dagg mu nekk pomme de terre naturel peut-être boobu moom mooy gën a baax si santé mais loolu mais waaw mais loolu est-ce que gënul baax ci santé que pomme de terre boo xamante ni dañ ko dañ ko euh, def ci réfrigérateur yi ba mu kii. amul assez de différence parce que tey euh, ci li nga xam ne mooy légume bu nekkee dafa ñor de trop. Euh, bienfait yi nga xam ne dañ ci nekkoon dafay daal di wàññeeku mais tey li nga xam ne mooy frite bi dañ ko baxal ñorul assez donc boo ko baxalee comme deuxième méthode bi ma xam ne moom laa wax mais bokkul ak bi nga xam ne moom laa indi tey ko baxalee ba mu xaw a ñor tuuti boo ko génnee da ci def glaçon ba glaçon bi seey nga seppi ko boo ko seppee ba mu wow nga def ci sa farine dugal sa frigo xam nga loolu ñorut. Mhm. léegi booy génnee euh, pour togg nga daal di ko génnee euh, nga frire ko euh, mu doon frite donc loolu amul benn différence. sauf que bële ne bu nekkee defoo ko comme ni ñu ko war a defee ci période tabaski bi dafay lax te ñëpp xam nañu tabaski moom sénégalais taamu nañ ci dressage lal sa table sa suuf ba mu rafet daal di ci teg say lekk. ok mhm, mhm. c'est bon. merci Keina jaajëfal nañ la ci pomme de terre bi ñu indil tey. <laughs> lu ma neex nag <laughs> en tout cas bii daal. Mm. mën na si benn anecdote de boo ñu quand on est on parti à l' étranger quoi léegi benn ñuy àngaloon dafa am ñoom ñu àngale quoi waaye bi mu ñëw mu ne fries fries fries waa ji mu ne. mais fries moom mooy lan sànq bi de fries mooy frites <laughs> fries mooy frites merci Keina jaajëfal nañ la alors dañuy enchaîner rapidement waxtaan ak yow stage parce que dañu nekk ci wàccaayu ah, tabaski tàmbali woon nañ ko la semaine dernière mais tey dañ koy daal di àggale léegi-léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi ay ci mu ngoog ñu dikkaat ci plateau bi ñu ngi ci virage bu mujj bi jaajëfal leen yéen ñi ñuy topp depuis sànq ba léegi ñu ànd ak yaa oustaz oustaz thème bi mu mel ni dañ